muur muuraay yi hmm. waaw cooru muur muuraay ci école bi gis nañ fa melni Ousmane Sonko nana na hmm. lañ ko mëna waxé ndax kiko annoncé mi ngi wuyo euh, mustapha girassi mu sur instruction du premier ministre mustapha hmm. girassi a rendu une visite de courtoisie d'amitié à la l'archevêque de Dakar Ousmane Ndiaye Ousmane Sonko nana na galaas sur instruction du ministre sur instruction <laughs> du Premier ministre, le ministre a rendu visite. A rendu visite. De courte amitié. à l'archevêque de Dakar. Qui est en même temps. Monsieur Benjamin Ndiaye. Le chef de l'église catholique. Sur instruction. Du Premier ministre. Du Premier ministre. Entre parenthèses, Ousmane Sonko. cëru entre parenthèse sur prévisions. <laughs> mun nañ fàtte gars yi xam nga yenn saa yi dañuy fàtte. fàtte comme nan. entre président ak premier ministre. ah dañ koy jaawale Ousmane Sonko dañ koy jaawale. <laughs> premier président parti passé. mooy président parti. mais ci nguur gi premier ministre la si. <laughs> d' accord wala li ma wax offense la. non non non non kenn offensé ko kenn offensé ko kenn. non bu dee. non non ko kenn bu ko retiré. président Pastef premier ministre du Sénégal. ok Nous ne dafa joxe instruction Yoni Moustapha Guirassy pour mu def dit monseigneur Benjamin Ndiaye Je ma sama estime ak sama respect mhm. chef de l'église oui une visite de courtoisie et d'amitié courtoisie et d'amitié oui de pourquoi visite de courtoisie et d'amitié visite de courtoisie et d'amitié kañ soxlawul médiatiser le Sur le médiatiser dem ma elmat hmm. seeti ko nemmeeku waaw wal waa famem teg moom loolu est-ce jar naa siiwal hmm, jar naa siiwal de parce que jar naa siiwal le patron de l'église non déedéet dama ne man dem naa kër elmat loolu jarul siiwal saaxoon teg moom jarul siiwal jar na siiwal moo se waaw toute la journée day recevoir man de mosuma recevoir mais ci mu remplacé monseigneur Théodore Adrien Sarr hmm. mos naa demandé audience mu recevoir ma ca bureau ba nekk cathédrale mais kii da nga ko demande woon mu mu recevoir rek demande gu demande wu demandé ko ko demandé demande dañuy recevoir ah, ah oui journée bi yëpp dañuy recevoir c'est pas extraordinaire de quoi non c'est rien du tout mais léegi lu tax ñu koy médiatiser hmm. parce que daa am ci diggante lu xew xam nga tout ça pour ça tout ça pour ça maanaam c'était dommage xam nga wax naa la fii keroog ma ne la bu cocktail amuloon bu cocktail amatoon cocktail amul woon bu amul waaw kero ba ñuy primé waa concours général su cocktail amul woon. waaw coow bi doom walla wala réception. waaw ah? xam nga du am. du am de. ah déedéet. waaw léegi moo tax man la tout ça pour ça. léegi. Mm. Mm. wax ji andi tole. léegi tole bi mooy dafa am lu ñuy wane télé ak lu ñu dul wane télé. xam nga la ñuy wane télé mooy salaamale salaamale salaamale nuyoo yi nuyonte yi les ah. civilités hmm. mais bi pari réwu na ah <laughs> naa la baax a baax ah am war a am jàkkaarloo te grâce yi mi ñu yónni ah moom waroon naa hmm. lu tax mu war a am bés ah, mais bi Ousmane Sonko kiiwee de keroog waaw lundi nga dem ak du girasi girasi de réagi na moo réagiroon waaw waaye yow girasi démb démb démb rusul ah waaw moom mu doon wax ne c'est un débat de règlement intérieur pas débat de mosquée de chapelle waaw yow boo demee yow ak la nga waxoon yëpp nga glace nga ñëw ñu yónni la ngay xujj xujjoor naan taxaw naan wéy tu sais ah yéen chrétiens yi saa yu leen dénkee suñu doom ñun ñun musulman yi da ngeen di def ci moom ay jikko yu baax. Kinaase wax loolu. waaw maanaam di ngeen di ngeen leen former mais di ngeen leen def ay jikko yu baax yuy tax ñoom ñu xam lu ñuy nu ñuy dundee ensemble tàgg leen bul xam nag lu mu wax mais bul xam luñ ko tontu aussi hmm? yow am fulla de xam nga église bii keroog ba gars yi demee ca dialogue national hmm. ba Macky Sall woote hmm? waaw ñun suñu suñu suñu suñu sëriñ yi nekk foofu di di layam layamal église moo wax dëgg ñëpp kontaan gis nañ fi ñu ñu nekk ci côté musulman bi ñu dañ ne makki am fi deux ans déglul xam xam loolu laa la wax dama ne dama ne amul fi deux ans dama ne hmm. dama ne xam nga doomu jullit tey wax hmm? bi ñu fi demee fee ñu woo leen fee ñun jullit yi ñoo doon layam layamal ca kanamu Macky Sall ba ñu xëyee benn discours lañ fa jàpp muy discours église mooy sa ginnaaw ñu wax la dëgg jàkkaarloo yow di la wax dëgg dëgg la woon du dëgg oui organiser avant la ah. lañ ko waxoon xam nga église état lu bëri la koy defal hmm. état hmm. lu bëri lay defal église mais église dañoo am fulla fullawu li nga waroog ñoom boo ko defee ñoom duñ la gërëm wala buñ la defalee mot de remerciement fa la ñuy yem mais ñun ngay defal lu ñu moom ñu lay tagg di la tagg ba naan woteel leen ko <laughs> déglu rek li nga moom de yow li nga war yow yow li sa maam liggéeyal la muy sa gàmm wala sa màggal mm-hmm. état ñoo des lu muy def état bu ñëwé moderniser les les les les cités religieuses Macky Sall mo jël xaalisam may ko voilà dañ ko gënné si budget def état xaalisu état bi di yoré waaw xaalisu état bi yokk xam nga won sama village bu mo dëkk fële Mbodiène kan hmm. ñu ko moderniser dëgg it dañ ko war moderniser waaw hmm. dañoo dem moderniser les villes religieuses sa mam bu liggéeyul won limu liggéey hmm ville ba kenn du ko considéré dëggit wala kenn du gërëm da ngay gërëm sa maam waaye di gërëm président banaan nañ ko voté kii ku ko voté loolu war nga askan wi ah waaw waaw vraiment ñun tamit nag duñ xoolaat suñu bopp coo dialogue national boo woon waaw ñun dañoo gaaw am lu ñu yéem ñun dégg nga ñu baax mm-hmm. te loolu du yoon The hmm wow, wow, di yonde wa kagn te def nañ ko ci dialogue national boobu hmm. discours historique ben khalif général de mourides hmm. mos na ne hmm. yéen mbàkke mbacke yi xam len sen bop yeen mbacke mbacke xam len sen hamlen yéen xale mbacke mbacke xam len sen valor, xam len lu ngeen di jar xam len sen valeur xam len sen valeur nguur mënu len jox len sen mam yi ngi Serigne Touba de moo déggoo lu ma wax de mu ne leen nguur munoo leen may lu leen seen maam liggéeyul mi deug fa yalla wa <laughs> deug la voilà ñu jàpp ne waxtaan wi li ko tënk débat sur le voile au Sénégal et les interprétations ressuscitées nous édifient sur les rivalités de notre société et replace une réalité de l'enfant règlement intérêt qui l'encadre au cours de débat L'absence de débat n'est très souvent pas bon signe pour une nation dans sa grande marche vers la prospérité. L'essentiel sera donc de passionnés, francs et sincères entre toutes les parties prenantes. Euh,